Euh, cause bi tax ñu reporter élection yi euh, mooy fichier électoral bi nga xamante ne bii moom lañ d'accord doon 2018 maanaam ci point boobu ndax am na yeneen point yu ñu d'accord doon li ñu d'accord doon nag moo tax préfet jël ay responsabilités am ci fomm ko te mooy euh, carte 2018 yi boo xoolee boobu permis yu bees yi amagul léegi nag fichier boobu segam ci la ñuy dem élection préfet moom dafa jël ay décision ferme pour nañu reporter élection yi ñu koy sant ci stabilité bi mu indi ci dëkk bi ndax bu bàyyi woon élection yi dem suba maanaam mbir mën naa xew loo xamante ne bi loolu warul am ci Touba donc loolu moom aussi ñu ngi ci profiter ci occasion bi di ko gërëm mais cause boobu moo tax ñu kii ndax carte yu njëkk ya numéro permis bu njëkk ba moo ci nekk te ñoom secrétaire regroupement bi euh, fiche boobu registre bi ñu indil sous-préfet amul date de naissance te tey mën nga mën nga fa gis Modou mbay rek par exemple numéro permis mën na am doublon mën na am doublon mën na am doublon te loolu après ci gis-gisu préfet amul sécurité te ñoon loolu aussi ñun les ñetti candidats yi loolu la ñu doon réclamer di ko kaas beneen bi aussi IDICA dafa raje ay carte yoo xamante ne bii tegu ko fenn demandé nañ ko lettre de radiation yi mënu mënu mënu de prouver dara am na aussi ay nit ñoo xamante ne bi par exemple day def Modou mbay rek def coxeur amul numéro permis te loolu aussi préfet dafa jëloon ay décision ferme ne képp ku fi andiwul euh, permis Euh, doo nekk mënoo nekk électeur dans cela nag bi ñu boolee loolu lépp te ñu gis ne fii ak suba xat na pour ñu mën a régler problème boobu préfet dafa jël décision vraiment pour que ñu annuler élection yi bu liy jàllee nag ñu dajewaat waxtaan loolu aussi wax dëgg yàlla maa ngi ciy profité di nuyu aussi waa Kabe ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay benn lañu xëy na lii dafa leerul rek beneen bi aussi mooy Idika ci boppam dafa def assemblée générale présenté ñu fausse information ndax dafa liggéey quatre cent trente cinq millions. di ko frais ba mu des quinze ba mu des quinze millions sept cent mille ci biir quinze millions sept cent mille yooyu ñun coalition bi ñu ne nañu ver dem vérifier ji loolu ndax ko am xolub liggéey quatre cent et quelques millions di ko frais ba mu des quinze millions est que kooku am na maandu tey bàyyi fa bàyyi fa xaalis boobu des bi ñu demee vérifier dem nañ boo am ay sources yu wóor yoo xamante ne bii gis nañ ne compte ba quatre millions quatorze mille soixante treize virgule quatre vingt huit francs moom moo fa nekk mais loolu dafa doy waar am nañ aussi yeneen source yoo xam ne gis nañ ne gazé nañ suñuy carte grise loolu moom déjà porté nañ ci plainte pour que yoon vraiment defal ñu ci éclairage ndax wax dëgg yàlla bu fekkee ne loolu am na su dee am na te yoon moom loolu la ñu wax te ressources yi nga xam moom la ñu gëstu aussi ci banque bi daa mel ni loolu la génne te daa mel ni leb nañ ci quarante millions de francs ci suñu GIE loolu nag wax dëgg yàlla maanaam bu amee sax ci yoon Idika moom waratul nekk candidat ci suñu regroupement bi ndax nit bu loxoom waru la nekk candidat